بسم الإله فنن الدار الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله فنن الدار يا الله سفي بقى به لي فيك يا الله bismillah ifinil adar ya Allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi mbokki lislaam mbokki Sénégal bitim réew seen mbokkum taalibe mu ñu wax Serigne Cheikh Sène Rakhya ma dëkk ca Bayax moo fas yéene ñëw di leen présenté benn émission bu bees bu ñu tuddee Zadul yi muy xewe fan fii ci Dakar en face technopole ñu di ko wax Madiyana TV bu ko defee nag dinañ ci waxtaane lu jëm ci diine. ak lu jëm ci wàllu taalif ak yi ci aju ci wàllu culture yëpp incha allah yëpp xew-xewi diine léegi nak kon nañ ci bàyyi xel muy am ayubis bis bu ne ci kàttan borom bi subhanahu wa taala kon nak Madiyana TV la télé bi tudd ngeen bàyyi xel kon ya ayu naa su ñëw leen déglu bi émission te yàlla tax ak yonent bi tax mu tal émission zaadul imaan di dolli gëm ci bépp jullit ku mën na koy teewlu en face technopole di façon waxtaane luy diine boole taalifa ya ca xew ci kàddu seex seen bi ngeen xam nu TV na ngeen koy jàpp ndax télé bi fu diine teew fas na faa teew yóbbu ab commission kon nag nañ bàyyi xel ci Madiyana TV fu diine mu yóbbu way wi salli ala sayyidina borom هيا بنفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جانا بدر ما قدر وابدي الأمن في دارين يا